bir si na loxoy daaji di gumu daar di gumu daar

woy maam woy maam xalifa Babacar fu ñuy jëleeti mam mi ko fu ñuy jëleete mam da baax woy lee bési tey la tey nañu delloo waat bum ca may moy ga mbay gay fay toj nga fi daawaati daaw dugu dugu waagaan xaandis waagaan xaandis waagaan waagaan bu ma sañaan

lu may prouvé te tàmbalee gu ma ah ah wait for me wait for me wait for me rajin ki tax ah, a war a wait nga naan rajin <laughs> ñaanal diw no yee ñaanal ma ko yàlla ñi dañuy bëgg ñi di bañ loolu moo gën ci man dama di ñeeñu di waaru wi yàlla baara mañ sa bigi jub may sa baay mami ku may sa baay baara mañ sa